TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer bismillahi rahmani rahim alif lam mim dalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون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 asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi nga xam ne yéenay seetaan seen site bi di TV tey nag ñu néew fii ci plateau spécial incha allah ngir waxtaanee jëmm ju tedd ji nga xam ne moom la ñuy waajal fàttaliku ngir kan mooy Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Cheikh Abdoul Ahad mi nga xam ne moo nekkoon ñetteelu xalifa Serigne Touba radiyallahu taala anhu ñu fas yéene ko waxtaanee incha allah rabbuna bi mu ganee jamono ak dalika ni mu teewee jamono tamit ak liggéey bi nga xam ne liggéey na ko fi rawatina bi mu nekkee Serigne Touba Serigne Abdoul Ahad Mbacké Mbacké nekk xalifa général kulli murid ban liggéey la fi liggéey ci Touba ak yan taxawaay la fi taxawaay rawatina ci wàllu xam-xam ak ñongalaat dëkk bi yëpp yëpp incha allah rabbana xam naa loolu la ñu fas yéene waxtaan yéen mbokk yi allah ànd ak ci yéen ñu ànd fas yéene ci ànd ak incha allah Serigne Abdoul Ahad Bousso mu bokk ci nga xam ne ñooy saytu màggal gi ci wàllu xam bi ñu fas yéene ànd ak moom liggéey bi bala ñoo tàmbale dañ koy jox incha allah mu nuyoo bu noppee ñu ànd ak moom ci liggéey bi aus billahi min sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. sëriñ bi ñu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñoo ñuy topp ci seen site web TV bi di Rafaayu TV. Mm-hmm. te di leen ndokkeel te di leen balu àq di balu àq ñëpp. Mm-hmm. di jiital ci nuyoo bi ndokkeel gi ak siyaar bi ak balwaq gi mhm. cheikh Mouhamadul tax mhm. xalifa général de Mouride ñaan sunu borom mu yàggal ko fi te wéral ko amiin ak ki nga xam ne moo fi nekkal borom ëtt bii ñu nekk mhm. eh, te fas ko yéene sëriñ Sidi Mbàkke mu cheikh Abdoul Ahad di ko ñaanal moom it sunu borom yàggal ko fi te wéral ko ak mbooleem njabootuk cheikh Abdoul Ahad gépp ak ñun murid yi ak taalibe yëpp ak julit yi barakatu xaadimu rasul macha allah ginnaaw nuyu ba si Abdou Lahad dégg ni ko waxee incha allah ki ñu fas yéene waxtaane mooy Serigne Abdou Lahad Mbacké di kenn ci njabootuk Serigne Touba bokk ci ñi nga xam ne toog nañ fi xalifa général ba noppi te daalika mu def fi liggéey boo xam ne liggéey bu am solo la yaakaar naa kenn du ko nattableeti di ñu ziare mbokk yi nga xam ne ñooy seetaan seen émission bi nga xam ne mooy spécial plateau ngir waxtaane sëriñ Abdou Lahad Mbacké ngir waajale ko màggal gi nga xam ne moom la jubli di di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu yàggal fi sëriñ Mountakha Bachir Mbacké mu yàgg fi lool ba liggéey bi mu fas yéene liggéeyal sëriñ Touba mu àggale ko ba naalaat yeneen liggéey àggalewaat ko yàlla na ko yàlla def te boole ko kàttan ak wér di ñaanal ki nga xam ne moo fi toogal sëriñ Abdou Lahad Mbacké di sëriñ Sidi Abdou Lahad Mbacké moom tamit yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal ba li mu bëgg a liggéey lépp moom tamit yàlla na ko yàlla àggale ba mu tàmbalewaat yeneen ba àggalewaat ko incha allah xam naa sëñ Abdou Lahad ni ñuy tàmbalee mooy seriñ Abdou Lahad Mbacke mooy kan ak fan la jamono fan la gënee jamono. Euh, jërëjëf sëriñ bi euh, euh, ni ngeen ko xamee ñi nekk ci waajtaayu màggalu Cheikh Abdou Lahad ci ndigalul sëriñ Sidi Mbacke mu Cheikh Abdou Lahad yàgg na ay at fukki at ak nangam. mu tànn benn commission boo xam ne ay ay ñu ngi ci. Mhm. di ay bokk tamit. Mhm. ay bokki taalibe jiital ci sëriñ Abdoul Ahad Jaxate ak mhm. mboolem mbokk yi ñu ko àndal muy benn commission culturelle boo xam ne mhm. lim ñu sas mooy mhm. képp koo xam ne euh, bëgg nga participer ci luy wane Cheikh Abdoul Ahad wala bëgg nga cee laaj bëgg cee am ay muamala euh, na nga jokkoo ak commission bi macha nag di commission culturelle boo xam ne wax dëgg yàlla teg nañ ko ci euh, kii bu am solo boo xam ne mi ngi liggéey mhm. ci nu kawe njort kon sëriñ bi ñu ngi ko ciy sant eh, muy sëriñ Sidi ndax ku mel ne Cheikh Abdoul Ahad nga xam ne mhm. eh, patrimoine la bu fees dell mhm. géej la eh, toujours ñuy dellu ci ay discours am di ko fàttaliku ak nim meloon ci wàllu xam-xam kon jaadu nag kuy wax ci moom nga taataan ko fu wér fu wér nii koy dégg man cee jariñu jariñu jariñu lu wér kon ñu ngi leen di sant yéen it alhamdulilah di ngeen jokkoo ak commission culturelle bi ngir eh, sàkku waxtaan woowu macha allah kon nag ñu ñëw mu baasoratan ci mm-hmm. laaj bi nga xam ne moom nga laaj muy kan ma Cheikh Abdoul Ahad eh, Cheikh Abdoul Ahad moom mooy eh, doomi xaadim rasul mm-hmm. di ñetteelu xalifaam mm-hmm. mi ngi gane àddina ci septembre 1914 mhm. ci njaareem euh, waajuram bu jigéen di soxna Mariama Jaxate bokk ci wàmbaakool ci askan bu baax a baax a baax euh, xaniyun ani taxriif ci boo waxee ne doomi sëriñ Tuuba mhm. waaye sëriñ bi doomam yëpp kenn ku nekk dafa am jagle gu la yàlla defal mhm. goo xam ne sa jagleelu bopp la euh, loolu nag Cheikh Abdoul Ahad daf cee ràññiku moom muy ci jamono bi nga xam ne ci lay feeñ jamono mhm. sëriñ bi euh, doxale na ci noo xam ne bari wut ci ñu ko doxale ndax bi nga xamee ne yàlla dogal na mu gane àddina mhm. ci njaareem ñi nga xam ne askanu maaraam ak mbusoobe danañ koy faral di defal ku gane àddina ñu koy wax sereng xëy nañu jaxasoo ak askan wi mën nañ koo xam xam nañ baax macha allah sëriñ Abdou Lahad dafa digle ne loolu moom nañ ko def ceeb rek te loolu daa doon dugub ji ñu jaxase ak nangam. ba mhm. pare it yokk ko. Mhm. ba noppi it woo ay mag ne leen dem leen ca néeg ba mu gane àddina ngeen ñaanalal ma ko ndax am naa ci moom yaakaar. sëñ bu mag bi sëriñ bu mag bi. macha allah dal di digle ñu jàng ci noppam. Mhm. ay xasida tabarakallah am na ñu ne xasidak lima in basir la. am na ñu ne xasidak fuste bi sarfil azanat. macha wala gu mën a doon daal digle nañu jàng ci moom ay xasida ñaanal ko mhm. daal di wax ne am naa ci moom yaakaar ba noppi daal di koy tudde Abdul Ahad ba noppi wax ne ku mën aw turam doo lakk loolu ci biir bi mu gënee àddina rek ci la njariñ yooyu daal di feeñ kon loolu wax ju wér la nga xam ne daa fi siiw rek waaye wax ju wér la moom ju wér wér la yoo xam ne mhm. commission bi gës na ko mhm. ba am ci ay firnde yu leer moo tax ñu di ko wax Abdul Ahad tabarakallah bañ wax ne mag ñi sax dañ ko doon téyelante ci seen biir di ko xool ba xam man mokkal lañ waaw ah, ndax man naa tur yi yu demee noonu macha allah loolu kon ak jagle la ba noppi ne am naa ci moom yaakaar am naa ci moom yaakaar du lu woyof mm-hmm. ah, am na benn waykat boo xam ne mm-hmm. ku siiw ku ñuy wax Mortala Diagne war mm-hmm. na ci ay bayit yu am solo yoo xam ne mat na di ko fàttaliku ndax daf ne dafay taarixal Cheikh Abdoulaye xam ne ca xaama bal sa si la feeñ ca njaareem nee nañ keroog la sëñ ba wax des ko yéem nee nañ keroog diine ji ak lislaam ji bég nañu mbég mu réy ci gan gi dégg loolu waxaat yeneen i wax ci daraja mhm. ak i ngëneelam wallahi moo am maxraja mhm. ba bis ba dell see mu daat koy berndeel mhm. daat néew turam abdul ahad moo barkeel am naa ci yaakaar ci abdul ahad mile kon jooja yaakaar seere naa ko man mooy jëfam yile <laughs> macha allah moo taxoon Cheikh Abdoul mhm. ci ay waxam yu njëkk mhm. bi mu toogee jotaayu Serigne Touba. Mhm. muy wax ak jullit yi naan leen su ma nammee tas sama yaakaari bàyyi ji yàlla bu ma ko fekke allahu kon lan la Serigne Touba yaakaaroon ci moom mooy muy doon koo xam ne dafay fés ci jubbanti askan wi dafay fés ci def lu ñu gis dafay fés ci génne mébéti sëriñ bi ah, loolu mooy mooy mooy mooy mooy li ci wér kon noonu la ak gane ak àddina demee demee moom Cheikh Abdoul Ahad mhm. euh, euh, comme ni ñu ko xamee kenn ku nekk fañ lay jaarale mhm. bi nga xamee ne euh, mat naa dal jàng sëriñ bi dalal ko jox ko sëriñ Amsatu Jaxate mhm. ba bi wax ko ne ko joxuma la ko ngir aada muy ku ñu jox nijaay dama laa yar am lu ma def ci yow bëgg nga def loolu ci moom moo ko joxaat ko sëriñ Euh, Alassane Diakhaté ki doon jàng fii mhm. ba sunu borom def mu mokkal alquran bind kaamil ci jamono yi sëriñ bi am na ñu ne Cheikh Amadou Moustapha la ko jébbal mhm. ci gëstu yi ñu def am dafa am mhm. ñu ñu waxoon nañu sëriñ bi la am na ñu ne Cheikh Amadou Moustapha la ko jébbal waaye bind na kaamil rek ci jamono yi sëriñ bi na bi féete fii Touba doon ku jàng ku bari xam-xam boo xam ne jàng na ci sëriñ Abibu ak borom xam-xam yi nga xam ne ñoo xam nañ ko nekkoon ci jamono jamono macha allah euh, loolu mooy li nga xam ne fi ko jaarale waaye loolu dafay doon koo xam ne nit mënut a ñàkk jaar foofu waaye soo gisee xam-xamam ak dégg alquraanam da dangay xam ne sëriñ bi def na ci moom dara wax nañ ne bi muy doog tàmbali jàng dafa doonoon koo xam ne xëy na hmm. mën naa am mokkal xawoon na dëgër ci moom bañ indi ci sëriñ bi ngir indi ko ci sëriñ mi ngir mu ñaanal ko. ngir mu ñaanal ko sëriñ bi wax nañ ne daf koo wax ne ko. Mhm. jàng li mu jàng ne ko ŋaal mu ŋaa mu mu ci gémmiñ ji waaw. booba dafa mel ne. Mhm. dañoo daal di jël aliwi mahfuz rek fi muril ko. ndax mhm. na lum jàng ma kol moom ci boppam wax na ne. su ma toogee ci am néeg waxtu. yàgg ye nit ñëw di yendu wax yendu maa nuyoo ay nit mhm. kenn ku ne bu nuyoo wax ma turam ak santam ba bis ba si mhm. su ñëwaatee kenn ku nekk su ma nuyoo mën na maa jaar ci ak turam ak sant xam nga loolu kon te loolu fàttali waaw waxit ne man ci sama jëmmi bopp day mhm. mokkal naa daanaka lu toll ci ñeenti junniy bayit ci xasida ci xasida kon kooku am xelam kon yéeme na te loolu dafay firnde ci da day da koy wax boroom xam-xam su waxee feeñ su bindee feeñ. bu bindee feeñ. koo xam ne su su su nee asalaamaaleykum wa rahmatullah. Mhm. du préparer discours. te da ngay gis ne aaya bu mu soxla day ñëwal boppam. benn discours mën na cee indil mat fanweeri aaya ak nangam. wallaahi. loolu te te nu mu ko soxlaa ni lay ñëwee. noonu lay ñëwee loolu yaa ku kuy conférencier war nga xam ne loolu yombut. yombut dañuy dem ci Google tapé aaya bu ñu soxla. ci soxla addis ne <laughs> bu ñu soxla addis ne moom nag. dajee lépp te moom muy wax moom ñu wax la kan mooy Sëñ Abdou Lahad kan mooy Cheikh Abdou Lahad ci wàllu ni mu ko jaarale macha allah waaja loolu nag a tax nag mhm. mu mën lii mu am kon ndegam Sëriñ Abdou Lahad moo wuute ak melokaan wa Mbakke lii di joote te yàlla njeeg borom belal moo làqu ku yàgg waaj te xam ni dun bee guddi ga seex abdu fanaan fee tuubaa ba woo belal mooy ca guddi duggoo baa ñii yëg ko ñii di dégg ndéem wóorul ñu ne te sax bis booba kenn réerul dëkk bi fees dell ci am nattable ba ca bitim réew ñëpp a ngi nattable barakallahu fiik sëriñ Abdou Lahad loolu leer na nga xam na mbokk yi nga xam ne ñoo ngi seetaan dégg nañ ñu wax ci sëriñ Abdou Lahad Mbacké dégg nañ waajtaay wi nga xam ne moom la ko sëriñ Tuubaa waajal ginnaaw bi mu ganee àdduna wax ganale ganale yi mu ko ganale nga xam ne lañ daan def dafa waxoon nit ñi ñu yokk ko ngir woon nit ñi uh-huh. wax ci aw turam ni tamit sëriñ Abdoul Ahad ku mën tur bi ah digge ci ndigge yoo xam ne kadalik ba mag ngi daan sonnee ngir xam ko te dégg nga uh-huh. loolu yaakaar na nekk na wax joo xam ne siiw na loolu nit ñi di ko wax waaye nag lu wér la uh-huh. sëriñ Abdoul Ahad bu sami yaakaar na dëggal na ko te ñoom sëriñ ab Ahad yi macha allah ñoom ñoo nekk ñi nga xam ne ñoo yor wàllu màggal ko sëriñ Abdoul Ahad jëm ci wàllu xam-xam barakallahu fiikum yaakaar na bu yàggu rek dajee nag ñoom ci sëriñ Abdoul Ahad Mbàkke moom sëriñ Fàllu ñu fa doon def benn kii bi muy waaj a dellu macha allah te loolu fekk naa ko fa te ñoom gis naa seen taxawaay bu baax a baax alhamdulilah kon xam naa dégg ngeen ni mu ko waxee bu baax a baax léegi ñaareelu question bi ko xam a mag macha naa li koy wane koo xam ne yaa ngi déglu ay waxtaanam rawatina ay discours am comme ni ko waxee du yor këyit du yor dara te daanaka li muy wax lépp day teew ci kanamam maa ngi dégg bu yàggul rek mu wax na xumma damaa fàtte ji mu ne mas naa ànd ak seen Abdou Lahad bu ñu masaane jógee fi jumtuwaa day wax dawal oto bi waaye day nekk di tar ba keroog ñu àgg Jurbel xam ne xasida gu mu tàmbali dana tari ba mu jeex mu jëlaat geneen kon loolu day wane ne mokkal gi bi doon wax am na ci ma macha allah ñaareel ba bi yàlla dogalee incha allah sëñ Abdou Lahad euh, war a nekk Serigne Touba Serigne Abdou Lahad Mbacké jamono jooju moom nu mu ko dikkee ak ban taxawaay la ci am euh, bi nga xamee ne mi ngi toog jataayu Xaadimu Rasuul euh, li ci am solo rek mooy mhm. laata loolu mhm. xam nga ne dafa topp ay magam toppin wu wér mhm. sanc ay dëkk ci at yu néew daanaka bi muy am fanweeri at ak nangam wala matu ko ay 1951 xam nga ku judd ku gane àddina 1914 dëkk bi nga sanc 1951 loolu teel na teel na wallaahi sanc ay dëkk lu mel ne ay Daaru Salaam Bëkki Barga mhm. euh, ak euh, dëkk bi sëñ Abdul Xudoos dëkk muy yooyu ba koy sanc booba at yu néew la am Touba Belel gi gën a siiw bi mu toogee jataayu Sëriñ Touba la ko sanc waaw ngir bëgg a jege Touba moom nag bi mu toogee nag doon xaadimu rasul nag mhm. sëriñ Mouhamadul Maamoun Ñang moo ñu nettali mhm. ne ñu dey mhm. dafa daal di wax ak nit ñi ngir ku amuk dégg da nga xam fi mu jëm ne dëgg ñëw na dane képp koo xam ne ànd nga ak man ci àddina jii ngir sëriñ Touba danga nga taxoo ak jaamu yàlla tey jëf lu baax te jub te bul tooñ kenn ku la tooñ boo ko mënee jéggal nga jéggal ko nee na ku def loolu dey da nga texe àddina texe àllaaxira mhm. te it mhm. bu ñu demee ci sëriñ Touba danaa la seere mm. ne nekkoon nga ci li nga war a nekk wa man lam yafal dalika fa anna bariun minhu wa ma sahidna ila bi ma alimna wa ma ala rasul <laughs> xam nga si muur war nga koo xam xam moo ñu nettali ne mhm. Cheikh Abdoul Ahad moo wax lii daan ne mhm. képp ku def loolu de dinaa la seere ci Sëriñ Tuubaa waaye ku ko deful nag set naa ci yow lu ma seere lu ma xamul te ndaw it jottali rek jottali rek la est-ce que <laughs> daan ne <laughs> rasulul mursal euh, nabiyul mursal moo jeex mhm. waaye rasulul mursal jeexut jeexut képp koo xam ne da nga naan mane ñu ne ah di la mhm. déglu rasulul mursal nga ca yalante nag nga xam la ngay wax allahu akbar ci la tàmbali di xiirtal nit ñi euh, ci tawxiid discours am yu njëkk yëpp da ngay dégg na ci tawxiid lay wax ah, yàlla ji wow koŋ mhm. ak yu demee noonu nga xam ne mhm. ci tawxiid la leen di wax ngir ñu dellu ci sunu borom tabaaraka kon mhm. teel naa xam fi mu jëm ginnaaw bu mu amee ngërëmul ay kilifa mu Cheikh Moustapha Cheikh Amadou Fadal macha allah ci la daal di nag tàmbali nag xool yi sëriñ bi jublu woon te sëriñ bi nag inni ujahidu bil ulumi wa bittiqa habdan qadiman lahu wal muaymin shahid mhm. lu la waaye mën a wax nag mhm. fanweeri at ak ñett yi ñu ko téye yëpp mhm. li ko taxoon a jóg biñ ko tuumaalee ne ko da ngay jihaat dane dëgg la waaye ci xam-xam ak ragal yàlla lay jihaat Cheikh Abdoul Ahad nag teel a xam ponk boobu sëriñ bi joxañ mu teel caa jublu muy xam-xam ci lan la njëkkee alquranul karim képp ko xam ne jàng alxuraan ba mokkal soo bindee ab kaamil yët ko mu neexal la neexal bu doon fii mhm. su mbasee wala ñaar fukki junni ca yooyu jamono macha allah ngir gone yi mhm. ah, mhm. jéem a jublu ci jàng ñu jàng waaw jéem a jublu ci jàng jël téere sëriñ bi defoon nañ ko Cheikh Amadou Fadel tàmbali di ko móol def am mat matbax fii ci kër gi macha di dajale xasida yi am njariñ ak xikma yi sëriñ bi di ko bindulu di bindulu mag ñi booba matbax bi fii la nekk boobu daaray kaamil teewagul teewagul hakaza mm-hmm. di xiir di dimbale daara yi mm-hmm. daara yi cosaan yi fi nekkoon mm-hmm. di sarse mangase ba mu fees di leen yët ab dund kon mi ngi ci xam-xam bi nga xamee ne nag tamit euh, gis na ne pour mu sax dëgg-dëgg xale yi xiirtal na leen ba ñu ngi jàng alxuraan jublu nañ ci xam-xam kon war na leen a wutal nag kaggu goo xam ne ku soxla téere boo soxla da ci nekk fa ngay dellu war naa tamit sonn ci traduire ko ci langue beneen bu bokkut ak arab bi ko sëriñ bindoon loolu lépp mu sonn ci traduire téere yi sëriñ bi yi nga xam ne moo moom la nit ñi di jàng tasawdu siqaar tasawdu subaan masaalikul jinaan macha allah ba noppi it mbind mag ñëpp mu dajale leen bindul ay kaamil mag ñi képp ku doon dara ci sëriñ bi mu binduloo la mhm. ba noppi lépp luy xam-xam mu yebal Cheikh Mamadou Mamoun Niang mu dem jëndi ko téereb xam boo mën a dégg ñëw teg ñu ànd ak si Moustapha Lo ñëw indi ko teg ko fi kon euh, yoon wi sëriñ bi njëkk a mhm. ci la tàmbali ab liggéey muy nag xiirtal ndaw li ci xam-xam xam na jamono boobu daanaka lu toll ay millions yu bari la yëkkati woon jox ko millions yu bari pour investir ci xam-xam maa ngi gis Moussa nee na daanaka lu mat 300 millions kenn xamul nu mu toll ngir ñu dem jëndi téere rek ngir yokk ko njàngale mu suufam bi mu leen jàppalee ba xam ne nag majalis yu majalis yu dëgër gis na ne tamit ñi ngi jàng fii ci jumaa ji di jàng ci suñu sàmba yi sëriñ Afia mhm. ba ñi ngi am mustawa bu baax ci xam-xam mhm. bay tàmbali nag di am ay bourse am ñoo xam ne dañuy def muxaamara mhm. di dem arabu saudi mu gis na nag dëgg la nit ñi soññ naa leen ci njàng ñi ngi mokkal alxuraan ñi ngi am xam-xam waaye nag ba tey am na lu sëriñ bi waxoon ci wajxalhu daxban maskana taallumi wa mawdia al fikrati wa tafahumi wa maskana al irsaadi wa tafhimi wa maskana taswibi wa tafhimi macha allah loola nag mu daal di ciy jublu daal ne kon université jaadu na mhm. tax mu sóobu ci université bi nga xam ne moom la Cheikh Amadou Mountakha di àggale di àggale waat ngir asen bu bu bu soññee nit ñi bañ nangoo jàng mhm. mu wutal leen loo xam ne da leen di xiirtal njàng mu kawe mi nga xam ne dana doon njàng moo xam ne day ànd ak ay teggin ay teggin tabarakallah ndax al waxalam bi an bi kasratil ilmi bi xayri adabi jaalibatun ila asa wa taxabi xam-xam bu anut ak teggin bu ku tëg njàngaleem sëriñ bi te loolu ngir nga man ko ki nga jàngal ba mu ne ar nga bàyyi ko mu génn jàng ci ay naar mën naa am bu fekkee amatul defaru mën naa ñëw soppi ko dañ gis nañ fi ba tey loolu tax kon Cheikh Abdoul moom ci wet boobu nag bàyyi mu liggéeyal ci sëriñ Tuubaa liggéey bu rëy rëy rëy kon wàllu xam-xam mu des nag kon loolu ci wàllu ruu la jëm mhmm. ndax ini ujahidu bi ulumi wa bit tuqaa la sëriñ bi wax macha allah te nit ki su ragalee su xamee mën na koo jural ragal yàlla ragal yàlla mhm. mu gis na nag am na lu nekk ci dëkk bi loo xam ne nit mën naa xam ba pare mhm. ñëw jaxasoo ak keneen koo kooku jubadi te te te te jubadi gi yomb fi mhm. mu taxaw temm nag ci jublu ci deuxième passe boobu ndax fexe ba lépp lu yàq lu waaw ndax almaru ala diini xalilihi wallah hakada waaw nit ki ci diinay xaritam lay nekk lay nekk ida kunta bi qawmin fa daahib an xiyaarahum mhm. wala taxsabil arda wa tarda maharradi ma sha allah te booba mhm. nit ñi dañuy tux ba génn ba jub jumaa ji fay seenub cigarette fii bu màggal amee lépp sëñ bi lu bu fi màggal amee cigarette si day naan day day day da ngay gis foo guddi gi da ngay gis ñëpp di ko def waaw ah, ah. ñu bari subhaanallah cigarette crèche bi mhm. lu bon lépp ngi ci dëkk bi macha allah wax dëgg yàlla nga xam ne nëbbuñ ko ah sëriñ Abdou Lahad nag daal di ñëw nag ci yetu madd faax wi <laughs> dellu ci madalul faw say ni jëlaat weneen bayit wajxalhu dahban maskana taallumi hmm. liggéey na ci hmm. mu gis ne ñooñu am na ay gàllankoor yu fi nekk ba léegi ndax am na ñuy def lu bon te lu bon yomb na fi wallaahi daa di wa man fahan hmm. li kulli aadin muslimi wa mad fahan an kulli aadin mujrimi mujrimi <laughs> tabarakallah <laughs> ñi jub te nekk ci lu baax dëkk bi njariñ lay doon ci ñoom doo xam lu ñu liggéey te dañuy tedd ay kër yu rafet oto yu baax waaye na doon ab dàkkuwaay ci ku bon moo tax yatu yatu madd fax bi bari nañu dóor ñu génn dañuy gis koo xam ne dañ ko fi doon xam mu nekk di def lu jubut da ngay jekki-jekki ñu ne génn na dëkk bi ñu génn dëkk bi wallaahi <laughs> yemu ca mu wut ñoo xam ne ñooy xiirtal ñooñu ngir ñu bàyyi loolu wut ay sandarmat créé fi brigade dem ba indi ay xaj yoo xam ne <laughs> lu laqatu ñu mën koo génne <laughs> lu nit ñi jàmbatee xaj yi nangam nangam mu ne ah ñu day sàllaw seeni moroom la ñuy seet bu ñu leen gisee rek génne leen ba noppi it am fayda ci ku mm-hmm. bañ ku ku ku bëgg a lànk li nga xam ne moom la bëgg mm-hmm. mu def ay stratégies yoo xam ne dañ lay sanctionné lu am solo am na benn naar bu nekkoon fii bi mu aayee ne nañ bàyyi nangam jaay sàngara wala nangam mm-hmm. naar ba lànk di continuer di jaay xëy na li mu ci doon am ci bénéfice bëri na mu def déclaration rek daane képp kuy taalibe kon lu mu jaayate bu ko kenn jënd <laughs> am na ay station am na ay fuur am na lu nekk bi mu defee déclaration bi maire yi nga xam ne ñooy ñoom la ñuy libéré mburu bu oto bii ñëw ñu gis ne ah lii kat mburum naar baa ñu ne bu mu agsi sëñ <laughs> Blaat waxoon na. waxoon na bu kenn jënd. mburu ma dellu. <laughs> est-ce que. dem naa ba yor sama oto bëgg a jënd essence. Mhm. Ah, li ah lii kat station naar ah, xalaatuma ko sax. jàll jàll ci beneen. lam lakkoon lépp dellu si. essence bi mu jëndoon mënut a fexe ba mu jar. Mhm. lu muy def dellu si daal di bàyyi daal di bàyyi lim bi nekkoon ak nga xam ne ci loolu mhm. la fexe ba liggéeyal sëriñ bi ba li sëriñ bi di ñaan mhm. feeñ ci taalibe yi wa jannatan li kulli aadin muslim waaye wa junnatan xan kulli aadin mujrimi mujrimi na doon àjjana ci képp koo xam ne da nga jub tey juble wallaahi waaye na doon ab pakk ci képp koo xam ne ab kàccoor nga ab kàccoor la yàq ci noonu la def nag ba kàccoor yëpp génn dëkk bi résultat bi nga xam ne rek doy na sëkk ci boo doon wax kan mooy Cheikh Abdoul Ahad mhm. mooy ni mu ci loolu wallaay fexe ba tey ñun ñi judd année 75 76 mhm. fexe na ba raxasal ñu dëkk bi ñun nga xam ne ñun biyee bu sell la ñuy juddoo ku bon yaa xam waaye nag fekkoo fi lu lay bon fekkoo fi la ci dëkk bi hakada di lu am solo ba nga mhm. xam ne ci àddina bi ba léegi loolu yoonu murit dañ ko waroon di gàddu di ko wane ci ndax dafa jiitu jamono dem na ba tubaab yi di aaye tux ci public sardin public. <laughs> ak ci saal yi ak ci aéroport yi. ak yooyu ngir gàllankoor gu mu indil doomu aadama. lor yi mu leen mujj jural ñu xam ko. te xoolal loolu ban année la ko aaye woon. kon. <laughs> muy ñaar yaakaar Sëriñ Tuubaa jaa ngi noonu. <laughs> mu gis na tamit dëkk tamit laaj na infrastructure ay normes. ci la daal di natte dëkk bi lu mat ñaar fukki junniy pàkk ak nangam def déclaration boobu. wane ne képp kuy taalibe war ngaa am Touba pujum néeg muy sa jot ci sawara kon ah, taalibe yëpp wut si Touba mu leen pàkke yi ngir yàlla hmm. fexe ba yokk titre foncier bi nga xam ne sëriñ bi moom la ko tubaab yi joxoon hmm. ku ñëw mu jox la pàkk nga dëkk ci corniche bi loolu su amee kon ndox dafay daal di jaadu indi forage yi mu taxaw ci ndox mi maa ngeeg maa ngeeg euh, may wax nii sëñ Modou Mamoun Niang moo ko nettali ci ay way benn bayit par bayit laa lay wax damay bañ temps bi gudd daan ne dem na sax banaan la loolu soo ko weddee laajal Samba Yàlla ministre bi fi nekkoon li Cheikh Abdou Lahad ay forage <laughs> macha allah daa di yokk courant bi mhm. def corniche boo xam ne mooy xëttale mbedd yi mhm. corniche xoolal corniche waaw amee solo ci dëkk corniche bu njëkk bi ak bu ñaareel bi yëpp. ñaar ba noppi tamit yokk sécurité dëkk bi. sëñ Modou Mamoune Niang wax na ko ne. Mhm. dafa aar Touba. xamal madinata shadaha sharafan hmm. maanaam aar na dëkk bi dolli ko tedd nga. ba nga xam ne ki dëkk ci dëkk bi day am kaaraange. ki fiy ñëw day am kaaraange. ba noppi it taxaw ci baatam baatam nga xam ne tey. fex bu lu mu bëgg rek mu am moom. état mhm. su dàqoon kenn ba mu dugg ci dëkk bi sax état sañ te ñëw ngir. jël ko ngir jéem ngir dañuy jaar ci moom moom mu jël kooka indi ci wetam wax ak état lu mu ko jege jege nag dana ko làq ba noppi nag jubbanti ko ba mu ne kocc. xam nga loolu dafa dafa di xol li am solo maanaam tey nii bàdd gi mel ne lu dagg kenn ku nekk jàpp ne sa kilifa ak bopp nga. su la déggee ngay wax dana la woo boo waxee la wër na wax jubbanti la waaye du la bàyyeek yoon. du la bàyyeeg yoon. waaye soo soo dëngee da lay jubbanti. bu la yoon naree kii moom dana fexe ba. dana fexe ba ak yoon. waaye nag boo ci jógee moom da nga jub. macha allah suñ la waree yar tamit danañ la yar. <laughs> waaye loolu ana lu ko mayoon. Mm-hmm. mooy mooy masuliya bi. maanaam gëm responsabilité. responsabilité ba noppi nag am njariñ. tabaarakallah kum war a taxaw taxaw la. Mm-hmm. xam nga dafa am solo ci li ma lay wax dafa am solo ki. soo ne koo yem ma fii toll ma fii dangay jël ay responsabilité ci moom. na ko na ko na ko jàppal defal nii. war a denc samp kër mu sampal la kër. Hmm. def ca la ca war. macha soo amul kër mu fexe ba tabaxal la kër. Hmm. dencal la soxna. <laughs> ay del nekk ci lu ci luy dëgg rek ci lu dëgg ak jub rek. ci ak jub hmm. kon loolu mooy. jubbanti gi jubbanti taalibe yi ak gëdd bi nga xam ne jox na ko yoonu murit ci wàllu force. Touba ci boppam discours yi mu ciy def ngir xamal julli dina leen tuubaa bokkut ak dëkk yi ginnaaw Makka ak ma Madina ndax Serigne Touba moo wax ne Touba su borom da koo tàllaloon ne ana ku ko bëgg. boo demee ci téere bu ñuy wax euh, Serigne bu Bousso Moulay moom moo ko taalif. Mhm. moo ko taalif. Mhm. tudde ko Touba wa masjidi al jaamih li ci leeral Touba bi ko sëriñ bi sanc mhm. li mu koy wër mhm. bi mu fi nekkee avant géej gi bi mu jógee ci géej gi ak yu deme noonu wax na ca tedd ngeel tedd ngeel Touba dégg naa ci Cheikh Mahamadul Mahmoud Niang tamit mu nettali ne mhm. sëriñ bi bi nga xamee ne sunu borom mi ngi koy may Touba daf ko tàllal ci góor yàlla yi ne ana ko bëgg ñu kenn ku nekk bëgg ko mu ne Touba yow tànnal Touba daal di daal di may tànn li may wax sax dégg naa ko fu ma fu ci ci sama koo xam ne sama maam la moo jur sama waajur bu jigéen di sëriñ Moodu Xari Faañang muy sëriñ Moodu Xari Faañang bu soo doonoon imaam yi Gédé macha allah sëriñ Tuubaa moo ko tàngalal ñeenti ñetti baraaday attaaye nettali ko lii ma lay wax nii hmm. allahu akbar nga xam ne kaset la bu fi nekk si Moussa Abdou Khadir doon ko laaj ah, ne sëriñ Tuubaa moo moo wax ne ma Tuubaa sëriñ bi da koo tàllal ne Euh, góor yàlla yi di ko xëccoo mu ne Touba tànnal Touba tànn ma moo tax man awma sago ci Touba allahu akbar kon loolu moo taxoon mu tamit loolu doonoon mbiram <laughs> kon suñ la dee tënkal liggéey Cheikh Abdoul Ahad jiital ci defar nit fexe ba ñoŋal dëkk bi ci ay yàq dëkk bi ci ay yàq-yàq mhm. ci lu bon mhm. tabaarkalla donte dëkk bi amul loolu waaye mhm. mu mu raxas ko ci lu fi wërta nekk dañ fi ba kenn ñemewu ko def ci mbedd xoolal loolu sëñ bi loolu googu réussir kenn ñemewu ko def ci mbedd mm-hmm. infrastructure dëkk mënu koo ñàkk mm-hmm. mu natt ay terrain yu bëri joxe ko joxe ko nit ñu indi fi ndox ak courant xàll mbedd xàll ay mbedd defar ay tëli wut defar ko ñi corniche ñaari corniche ñaari corniche ngir dëkk bi mën a yaatu ah. tabarakallah <laughs> kon lu ci des nangoo toog jaamu yàlla allahu akbar li ma jiital mooy xam-xam ci la njëkke ci la njëkk ndax euh, askan wu nekk boo leen bëggee defar ci xam-xam nga leen nga leen di jaare mhm. ndax nit ku xamul du mën a du mën a def lu baax wallaahi kon mhm. loolu bokk na ci ay injaasaatam moom Cheikh Abdoul Ahad Cheikh Abdoul Ahad macha allah jërëjëf sëñ Abdoul Ahad macha allah kàddu yi leer la lool xam naa sax daa mel ne da nga jël sama laaj yu bëree bëri mhm. boole ko ci benn laaj bi ma la laajoon waaye macha allah xam naa noonu lay gën a baaxee ndax tey ñu njëkkante waxtu weeg yooyu xam naa macha allah li ñuy laajaat li nga xam naa leer na suñ ko dégg suñu Abdou Lahad xam naa yëngatu na ci wàllu côté yëpp yaakaar naa ku déggoon njàngal mi Serigne Touba la xam-xam bi fexe na ba xam-xam dugg fi mu jël alal alal ju bare bare def ko ci ngir taxawal daare kaamil jël alal ju bare jox ngir ñu jënd ay téere yoo xam ne amu fi ñu indi ko fi ngir nit ñi mën ko sol boole ci tabax daara ju mag a mag ngir lan képp bépp xam-xam boo xam ñoo ngi koy jàng ci macha allah muy daara ji nga xam ne moom la sëriñ Mountakha Bachirou Mbacké di àggale di ñaan sama borom subhanahu wa taala yàlla na ko fi gën a yàggal ba mu àggale la waaye ndax ñoom de wax dëgg yàlla sëriñ Abdou Lahad yéene jooju la amoon mooy daara ji àgg ak jàmm ba ñëpp di fi jàng xam-xam macha xam naa ñaare ba la ñuy laan mooy sëriñ Abdou Lahad taxawaayam ci jumaa ji rawatina bi muy wax naan moom nañ ci def milliard man nag lépp lu ma am danaa ko ci def xam ne moom li jëkk a xam moom lépp lu am dana ko ci def ba pare wootu murit yëpp pour ñu ñëw ci liggéey boobu ban taxawaay la amul ci jumaa bi bi muy yokkaat jumaa ji mhm. yokk jumaa ji dafa am taxawaay bu jiitu muy mhm. fexe ba mhm. ñi nekk ci jumaa ji di def li gënal sëriñ bi nekk ci jumaa ji di def li gënal sëriñ bi mooy ñi nga xam ne ñooy dëggal wajxal buyuti kullaha masajida yaa naa fi an man laa la yakunu sajida hmm. waneen bayit wi euh, bi mu ñaan ne na nga saxal julli juróom ci dëkk bi ñooña ak liggéey bi ñu defal sëriñ Touba nga xam ne sëriñ bi ñu ko tàmbale woon ci gànnaar muy ñeenti kaamil yi ñu fi war a jàng bis bu set lim njëkk def mooy wut am magasin rek di leen regleel ab dund di ko regleel imaam yi mhm. noddukat yi waa daaray kaamil pour ñu gën a mën a taxaw jumaa rek équipe boo xam ne da leen jël spécial jële ko ci kër yëpp mhm. ñuy bale jumaa ji mu warlu leen ñoo ñoo ñëpp seenu dund allahu te ñooñu ñooy def liggéey bi gënal sëriñ sëriñ bi nag lu la waaye man a wax <laughs> ak lu coow li bëri bëri li ko taxoon a jóg mooy diine rek kon ñi nekk ci li nga xam ne moo ko taxoon a jóg mhm. ñu ñoo jiitu ci ñu war a teral mhm. te mooy ñi nga xam ne ñoo koy sàmmal diine bi muy ñuy jàng alxuraan di julli ak ñi ak imaam yeeg boroom xam-xam yeeg noddukat yi <laughs> ci ñooñu la jël tegloon ci condition yu wóor ba nga xam ne saytu na leen saytu yu wóor ba nga xam ne hmm. dañ leen di ñee ci loolu ba noppi nag jumaa ji dafa am histoire ci yoonu murit muy xam ngeen ne waxtaan wi loolu taxu koo jóg hmm. waaye liggéey jumaay Tuubaa li tax sunu boroom hmm. bi mu ko jagleelee sëriñ bi malaayika yi ak junne yi ñëw bëgg koo tabax mu gàntal leen xëy na beneen yoon mën naa am ñu am occasion ci waxtaan ci histoire jumaa ji waaye li tax sëriñ bi gàntal leen ngir bëgg njabootam gi jariñu ci mooy résultat bi mu jural yoonu murit muy xurriya gi mu leen jox tey test bi tubaab yi njëkk a def ngir xool yoonu murit seen force mooy wax Cheikh Mamadou Moustapha ne ko jumaa ji mënut a am te ab raay amut te ñun amuñ jumtuwaay yu ñu ko mën a tabaxee amuñu ay nit yaay wut ñu koy liggéey yaay wut ñu koy liggéey te da leen di fay dañuy lekk yàpp lekk waaw <laughs> te nangam nga leen fay bu ba noppi bind ko ci kayit mu signé mu signé lépp diir bi bu gàtt la leen joxoon loolu lépp murid yi réussir ko ci lañ nag xam ne nag lu ñu bëgg mën nañu ko defal seen bopp macha allah war ci murid am ak ñu fay nga waññu ko moo génne xalaat boobu tabaarakallah daan ne murid yi bu ñu leen fayee ba ngoonee ku xëy si buy ñëw na nuyu na nuyu sëriñ bi rek bàyyi dërëm bàyyi dërëm bi ci ci loxoom bu <laughs> defee bu <laughs> bu ngoonee ñu ñu fayal leen ci xam-xam ma sàmm bu gën a xalaat boobu allah mais xam nga day tax tubaab yi kon xam ne ñi ñu ngi leen di fay waaye waaw waaye comme ne bi ñuy ànd ak ñoom neex nga joxe addiyee boo xëyee di rek <laughs> la fayoon dem la nga joxe waat loolu nag bi nga xamee ne gis na ne mm-hmm. fi jumaa ji toll sëriñ bi Cheikh Moustapha liggéey ci Cheikh Mouhamadou sëñ Mouhamadul Fadel ñëw àggale ko mu ñëw nag bokk na ci dëggal yaakaar yi baayam nag mu ne ah ñii kat li ñu fi defoon du ma ko lal waaye dinaa fi def lu toll ne loolu mm. loolu ak dogu la ah, dogul wallaahi ba noppi doxal ci doxale ci noo xam ne mm. daayira bu nekk dama koy faral di wax bu ma génnee bitim réew ne leen Cheikh Abdou Lahad gis naa bi muy déclaré bi muy laaj addiyee jumaa ji mm-hmm. un milliard nangam ba noppi di def déclaration di wane ne lii moo fi daje def naa ko fii ak fii ak nangam ak nangam mel ni kuy def bilan mel ni kuy joxe bilan rek ma ne leen ma ne leen su su ko neexoon mu def ni waa Daaru di def mhm. bu ñu joxee addee jox ko almet su ko neexoon mu taal ko moo ko moom moo ko moom waaye li mu ci jublu mooy képp kuy jëwrin wala ku jiite mbooloo ci yoonu murit ngay leeral ngay leeral ak sawarloo tamit ñiy joxe ñuy xam ne seen waaw ah déet Cheikh suñu Cheikh Gaynde moo ne woon mhm. ku nekk ci mbooloo mhm. na ngay laaj lu ñu am te di ko def fuñ xam Cheikh Abdoul Ahad loolu la doon jàngale moo tax mu doon leeral nga xam ne yokk bi lim ci def ci ay milliards ak ci ak dogu force boobu yoonu murit feeñal ci mën a dajale benn milliard am na koo xam ne euh, masoon naa doon ministre de finance Cheikh Abdoul Ahad daf ko woowoon Touba Belal ba mu ñëw mu ànd ak moom ci néeg ba milliard ba nekk mu wan ko ko mu ne ko yàgg na maa liggéey ci banque mondiale ay ati at dama doon dégg milliard nag xaalis bu ne jaar na ci man waaye ci ay chiffres chiffres lay doon waaye mosuma gis waaye milliard bu ma gis nii nag mu tiim maa ngi koy doog a gis kooku bokk na ci ki xelal Cheikh Abdoul mhm. ngir ñu ubbi compte bokk na ci li sabab li ngay dégg ñaan compte yoonu murid compte yoonu murid daanaka foofu la sabab nga xam ne Cheikh Abdoul Ahad réalisé na li muy réalisé lépp bi mu fiy jógee mhm. wax nañ ne bàyyi na fii lu mat 600 millions ci compte dafa mel ne li sëriñ Touba defoon discours bi mu defoon ci njaareem ci ne na taalibe bu nekk joxe ñaar fukki dërëm ak juróom-ñett ba noppi wax leen ñaari baat yu am solo muy jamono gi ñëw ci kanam joo ku la mënal sañal la te ku la sañal dina la gàllankoor ci sa diine wala mu gàllankoor la ci sa ngor kon na ngeen nangoo liggéey te na ngeen ko nangoo delloo ci yoonu yàlla loolu kenn ku nekk xam na ne murid yi jariñu nañ ci bu baax sañ sanc ay dëkk mhm. ak wàllu économie boo demee Dakar wala nga dem Saint-Louis wala nga dem wala nga dem bitim réew da nga xam taalibe Sëriñ Tuubaa yi ni ñu déggee wax jooju Allahu akbar jënd ay kër di ko moomal seen bopp mm-hmm. te xaalis defuñ foofa am fa ni mu jafee ni mu jafee te xaalis defuñ ko ci seen xol mm-hmm. mën nañoo yëkkati milliard joxe mm-hmm. kon yoonu murid dem ba am doole ba am mbënd mën a am xalif général di murid di génne milliard di ko jox état kooku ku ne kooku wax dëgg am na xurriya mais sëñ mbir yi nañ koy seet foofu rek <laughs> coow li ah. jëru ko maanaam nañ koy seet foofu rek macha kon force boobu tamit Cheikh Abdoul Ahad da ko def ci taalibe yi jëmmal daayira yi représentant Serigne Touba yi ci dëkk yi ak fu ñu mën a nekk ci bitim réew ak biir réew mi mu dooleel leen nga xam ne tey taalibe yu nekk ci dëkk booba représentant Serigne Touba ba rek day am doole am doole goo xam ne mhm. du jar sax ngay jàll si état da koy wekk ndax ka fa nekk moo xam gouverneur wala préfet la ku mën a doon day xam ne ah kii kat moo fi nekk déet moo fi nekk nii waaye nag am si ablaat la fii am si ablaat la fii <laughs> te loolu force boobu tamit wax dëgg yàlla Euh, mi ngi ko def ci bi muy tabax yokk bi loolu moo indi kër mag moom gi di kër Serigne Touba nga xam ne tey mooy dajewukaayu këri diine yi yëpp. résultat bi mu def ci loolu. Mhm. moo ko njëkkee wax dëgg yàlla xalaatam la. ba nga gis ne këri diine yëpp gis nga ne ñuy bëgg ay kër. ngir bëgg kër bi kum mag moom. waaw. Mhm. te loolu moom ci ñàqu taalibe yi rek lay jógee. kon boo dee xool tamit ci wàllu. jox gëdd yoon wi ak it teg daayira yi ñu ñu jub tey jubal ak leeral ak xam joxe ak nangoo liggéey liggéey na ci liggéey bu ama ama solo moom moom moom Cheikh Abdoulaye loolu di lu wér mhm. waaye tamit mhm. euh, digganteem ak ak état dafa am solo mhm. rawatina Abdou Diouf Abdou Diouf xanaa bi muy toog mi ngi koy wax na ko fexeel ba li nga waxoon nag nit ñi bañ fa lalal na nga fexe ba nu nga ko jëfee wax ju dëgg jooju <laughs> moom tabarkalla. waaye nag ku ëmb sa sànqal ëmb sa kersa. est-ce que wér na. <laughs> moom li tax état ñemewu ko woon mooy da leen a bàyyee woon lañ yor te di leen wax dëgg <laughs> ba noppi doonoon ab diisookat. loolu bi ko sëñ bi ko sëñ Fallou boole woon ak Senghor Senghor woolu ko ba mu ñëw xuma dikku lu ne mu ne ko loo bëgg loo bëgg loo bëgg wax ba àgg. waaw dégg naa ci waxtaan yi ñuy def Serigne Khary Diakhaté di ko faral di nettali. dafa am lu Senghor doon séddale këri diine yi mhm. kenn ku nekk mu yónnee la dara yónnee dara Cheikh Abdoul Ahad mhm. Cheikh Abdoul Ahad dolli ca dara delloo ko mhm. bu ñu demee conseil mi daal di dajee daan ne ah murid yi dañoo bëri xaalis nañ nañ yokk xaalis yokk ci lu bëree bëri indi Senghor la woon Abdou Diouf wala. Senghor Senghor jëmmi ah, Senghor ah, waaw mbir bi ci Senghor la tàmbalee. Senghor moom li tax mu gaawur kii dafa gis muamala yi. ndax moom li mu àndoon ak Senghor histoire yi dafa la nettali woon histoire forage bi biñ koy. Ah, biñ koy tabax te ci <laughs> doxalin wi te ci la ko Senghor yeeyee nag moom moo tax moom mu xamoon kan mooy Cheikh Blahab. <laughs> bi nga xamee ni mujj ñëw na mu ne ko nekkoon na ko téye nag te déglu ma. <laughs> ba ma ñëw Ndakaaru. Senghor nag loolu travaillé ko lool mu jàpp ko sëñ Abdu ñëw ndakaaru gane ba nag bañ koo wax ca loola dara mu jékki-jékki ne ko ah sëñ bi kat am na loo ma waxoon yónnee naa fi ay yoon yoon nga ne ma téye ko ba ma ñëw danañ ci wax nee na mu ne ko waajule si ngoor maag yow séquñ nga may jox tin ma ci nga tin ma ci lañ séq dégg nga wolof yooyu ah, tin xam naa bu baax li mu tin ma ci ma tin ma ci waaw état ngir mu mën ngir mu mën a mën a mën a mën a wéral loolu da ngay doon koo xam ne soxlaaloo ko dara soxlaaloo ko dara soxlaaloo ko dara mhm. mooy tax nga am baat ci moom moo tax lu mësaan bëgg ci ñoom rek bu ko waxee mu ngoon moom balaa ngoon mu ah, sotti tey da di wax lu leen di jariñ toujours te bu mhm. taalibe yi wala jullit yi bu ñu bëggee nekk ci lu dul dëgg loo xam ne mhm. euh, baaxul ci ñoom mhm. day jël rajo bi wax ak sénégalais yi xamu la murid yi de day wax ak sénégalais yi sénégalais yëpp bàyyi bàyyi xel ay waxam loolu lu ko maye mooy xam ne état ni ñu jëflante ak moom mooy da ngay jiital intérêt askan wi. te doo jiital sa intérêt bopp bopp. Mhm. loolu it kilifa diine yi génération bu mujj bi war nañ cee. jàngal lu bari bari macha allah te bàyyi santaas yi ci ci média bi. <laughs> <laughs> boo sàkkoo dara kii la ko rek nga. taxaw jël sa sa Facebook wala sa nangam dal ci kaw kii nangam. <laughs> wala nga buñ ko tudd ci waaw ah, wax dëgg yàlla loolu xew loolu xewutoon ci yoon wi murid moom li ci xewoon mooy nangoo liggéey ba nga xam ne dañuy amal seen bopp. mënal seen bopp sañal seen bopp wallaahi te loolu mooy li fi xew ba léegi nii ci mhm. ki nga xam ne mooy yor yoonu murid muy Cheikh Amadou Mountakha macha allah doo dégg mukk de mhm. université bii mhm. mu woo président ne ko euh, jox ma nangam jox ma nangam taalibe yi rek wallaahi te loolu mooy li Serigne Touba santaane woon loolu Cheikh Abdoul nag képp ku fi ñëwaat doon jëwriñu Serigne Touba rek faw nga roy ci moom aw doxalin ngir mat sëkk gum matoon ak dëggal gum dëggal yaakaar yi waa juróom moom Serigne Touba tabarakallah alhamdulilah Serigne bi yaakaar naa ne alhamdulilah jërëjëf macha allah <laughs> loolu leer na lañ macha allah barakallah la Abdou Lahad Bousso xam na ku dégg wax ji xam ne si la Lahad Mbacké wax dëgg yàlla jëmban na ci taalibe yi ak dëggu ak nangoo liggéey nangoo jaamu yàlla

wóor war ngaa wax ne fii lay dugg ak nii laa koy def macha allah di ñaan suñu borom subhanahu wa taala fayal ñu ko gën a yokk leen te ñu ci barkeem te ñun ñi nga xam ne ñooy ak ay taalibeem ak njabootam gi nga xam ne ñoo fi nekk yàlla gën ñoo kattanal dëgëral ñu di ñaanal sëñ Sidi gën ko fee yàggal ba moom tamit liggéey bi bëgg yàlla gën ko ko yàlla gën koo kàttanal ba mu àggale ko ni mu ko bëggee macha allah naa di sant ñoom tamit eh, turandoo si Abdou Lahad yi nga xam ne ñoom tamit ñoo yor commission culturelle bi nga xam ne moo aju ci wàllu màggal gi di leen ñaanal ñoom tamit seen taxawaay rafet na lool wax dëgg yàlla ñoo ngi leen bàyyi xel lu bare bare di leen ñaanal yàlla na leen yàlla gën a taxaw gën leen a kàttan allah mbokk nga xam yéen a ngi seen plateau bi nga xam ne moom lañu jëm si incha allah balaa yàgg rek mu des ay fan yu néew a rek alhamdulilah ñu ànd ak suñu mbokk suñu xarit suñu Abdoulaye Bousso bi nga xam ne moo fi mooy si ab laxaat ci ay soññam lu ñu ci mën a jàngale ak ay dénkaaneem yoo xam ne daan na ko dénk murid yi lu ñu ci mën a jariñoo xam ne rawat ñi seetaan ñu mën ko bàyyi xel bu baax a baax euh, yooyu moom bëri na bëri goo xam ne xëy nañu tànn ci ñaar wala ñett rek mhm. daana wax ne bokk yu nekk nga xam ne ay bi ay bokk lañ ci seen biir war nañ bu ñu toogee ba mu yàgg ñu àndandoo dugg ci am néeg ne fa medd ba mu yàgg ñu génn donte waxuñ dara ndax ku leen gis ku ku leen gis du ñemee dugg ca seen biir di ca def lu dëng ngir xam jàpp ne boloku ne ci lépp rek waaw ah, ah. daana wax ne day lépp loo gis muy nekk ci diggante dina ak duma ko mhm. Cheikh Abdou Lahad ca man de jëf laa xam wala ma ba wala jëf rek wala ma bàyyi wala ah. moom wax lu daal moom du ci dugg moom déedéet déedéet kon mën nañ koo roy ci moom hmm. mën ko roy ci moom daana wax ne tamit nit ku nekk hmm. war naa bàyyi xel euh, jëf yi hmm. ndax benn boo koy hmm. firi dafa gudd lool. war naa xam boppam ndax su xamee boppam. Hmm. dina noppal boppam noppal ay soppeem. Hmm. sonal ay noonam. ay sonal ay noonam. <laughs> waaye su xamu xamut boppam. sonal boppam. sonal ay mbokkam ay noonam. sonal ay mbokkam ay mbokkam. <laughs> macha allah ci wàllu xam sa bopp. wallaahi. <laughs> baarakallah di lu am solo mhm. daana wax na nit tamit ñi ngi koy xame ci su waxi renam wuutewul ak waxi daaw gor dëgg ngi noonu jëfi jëfi dé waaw jëfi renam su wuutee ak jëfi daaw mhm. jàpp jàpp ko gor dëgg ngi noonu mhm. nañ ci jàngat nag ci digge yi <laughs> ak wax loo xam ne leer na la doo ko def Cheikh Abdoul Ahad nee na gor dëgg mooy ki nga xam ne waxi renam day niroo ak jëfi déwénam <laughs> loolu sax la ko waxee waxi renam niroo ak jëfi déwénam <laughs> waaye sax waxi ne danaa jëf lii bu déwénee mm-hmm. déwén ñëw mu safaanoo ak loolu loolu mat naa mooy rawatina kilifa nag mm. tabarakallah kilifa ak diine moo xam kilifa ak aada dafa war a am kàddu mm-hmm. yaakaar naa dama leen di jox dig daje rek incha allah le 25 exposition bi nga xam ne dañ koy ubbi mhm. commission bi préparé na ay xëkkama yu bëri yu jëm ci yooyu su ngeen préféré reportage incha allah da ngeen a euh, dellu ci njariñi xëkkama Cheikh Abdoul Ahad yu fees dellu yoo xam ne dañ koo def par ay jukki incha allah commission bi dana exposition bu am solo fii ci buntu kër Cheikh Abdoul xam naa kon sëriñ bi fekkee ne amaatoo beneen laaj ñu ngi leen sant bu baax ngir yeneen activités yi nga xam ne ñu ngi ci war a jublu nii. tabaarakallah euh, di ñaan sunu borom mu defal leen tawféex ñu ngi leen di topp di topp seen liggéey. baarakallah fiik. Euh, yal na leen yàlla fay te dëgëral leen. amiin rabbil aalamiin euh, ndax mbir yi tamit nii la. Mhm. kenn ku nekk rek don bi nekk ci yow ak li nga mën a jariñ askan wi. Mhm. muy xitma. Mhm. da nga cee war a jëm. macha allah gis nañ Rafah TV. mi ngi jariñ askan wi ci xool liy dëgg. parce que it. sëñ Maamor Mourtala moom dégg yi nga xam ne mhm. dañu leen a wanewut caaxaan yi ñu organisé da leen a nar a nëbb <laughs> tabarkalla waaw waaw xam nga caaxaan yi ñu organisé dañ koy muur peinture ko ba nga xam ne bëri lool sax daa bëri te dafa bëri dëgg yi nga xam ne nag dañ leen a wane wut yéen su ngeen demee di fexe di jël dëgg yooyu di ko wane su boobaa caaxaankat yi dañuy daw ñu di sant di leen allah barakallah fi jërëjëf jazakallahu xeyran sëñ Abdou Lahad ñoo ngi lay sant bu baax di nuyu mbokk yi nga xam ne yëpp yeneen doon seetaan seen plateau spécial bi nga xam ne moo aji ci magal sëñ Abdou Lahad gi ci seen seen site bi de Rafah TV ngeen seen mbokk seen xarit Mouhamadou ànd ak sëñ Mourtada ci caméra bi macha allah sëñ Abdou Lahad ñoo ngi leen sant bu baax di leen gërëm ci taxawaay bi nga xam ne taxaw ngeen ko ci wàllu màggal gi incha allah di leen jox dig daje incha allah ci yeneen jataay ci rawatina ci màggal sëñ Abdou Lahad gi incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mooy sëñ Touba rek lañu yaakaar tey moom lañu yaakaar ëllëg wóolu ak gëm ak ragal ak yaakaar sëñ Touba rek lañu ko def bi ñu ko defee sëñ Touba nag dafa am sabab sabab si moo di sëñ ne ñokk ndax daal di wone xalaatam la mu bëgg a def ak fa mu bëgg a jëm la mu njëkk a wax moo di sahitu anna allaha rabbul xalqi wa anna ahmada rasulul xaqi seere naa ne yàlla rek moo moom bindeef yépp seere naa ne yonente bi mooy ko ñu ci dëgg loolu ñu daal di xam kii ne jàpp na ne yàllaay buur jàpp na ne yonente bi mooy ndawam mu daal ci teg ne dalla ni yàllaahu ala muhammad yi waxaada ni muhammad lissamad yi yàlla tegtal na ma yonente bi yonente bi xam na may jëme ma ci yàlla ñu daal di xam ko ne kooku yàlla ak yonente bi rek lay nekk seen diggante boolewul ci lenn Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer